Ouma Dieng deuxième adjoint au maire représenté fii monsieur le maire nga xam ne dafa nekk ci yeneen yitte tey jii nii. li waraloon ndaje bi di tey mooy ñu teew fii ak euh, le sous-préfet de l'arrondissement de Sakata Jolof ak waa comité d'organisation bu Gàmmu Ngilu moo waraloon ñu teew fi won fi nag tey jii chef de service yi nga xam ni yëpp ñoom ñoo nekk donc ci département bi euh, ñu war a waxtaanee naka la ñuy préparer gàmmu gi nga xam ne Gàmmu ngilo la. mu neex gàmm nga xam ne gii gu rëy la mën nañu wax ne gàmm international la parce que partout nit ñu dañu fay jóge ci yenn pays dañuy ñëw waxuma la sous région bi ak ak biir Sénégal yëpp. dispositif yi ñu fi waajal kenn ku ci nekk ci chef de service yi fi nekk ci teewaayu le sous préfet jël nga say engagement muy santé nga xam ne dañoo nekk ci période de nawet. dana ñoom danañ def couverture médicale képp ku nga xam ne kii ala ko jàngoro dal na la fa ñu man la faj waa gendarmerie aussi veiller ci sécurité bi waa sapeur danañ ñoom danañ ñoom aussi dinañ teew hydraulique aussi ci wàllu ndox mi waa élevage ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu ndawal yi nga xam ne dañu ko fa def kenn ku ci nekk jël nga say engagement waa Eaux et Forêts également nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu matt bi ak jumtukaay yooyu ci waaju aji yëpp donc service d'hygiène également kenn ku ci nekk jël nga taxaw jël say engagement ñun aussi en tant que maire aussi am na lu nga xam ne li daf ñu ci war ndax euh, gàmmu bi sunu gàmmu la ndax ci fii ci biir commune bi amuñu gàmmu bu nga xam ne bi gën na rëy gàmmu Ngilo amuñu gàmmu bu nga xam ne aussi wala événement boo xam ne ëpp na importance donc bu Ngilo kon lepp lu nga xam ne rek aussi mairie war na ko wana taxawé engagement aussi bu nga xam bi jël nañ ko fa rek allah dinañ jéem ko bu bés ba lepp nekk ci jamm ak salam dafa nekk bu am solo ndax bés bu nga xam dañuy magal ki nga xam ne kii mooy gën ki mbindef nga xam ne ñun mom lañu ñu gëm euh, buñ koy magal yaakaar naa ne képp ko nga xam ne kii nga fay ñëw rek da nga war indalé loolu te bañ fi indi lu nga xam ni rek wuté na ak li nga xam tax bi juk kon ñu ngi woo ñi nga xam ne ñii ñëpp rek ñu ñëw teew si waaye ànd ko ak diine ànd ko ak yar ndax bërëb ba nga xam ne bii moom la ñu rajo ji muy ngilo bërëb la nga xam ne bërëb bu sell la bërëb bu sell nag boo fay dem da ngaa war a sell yow ci sa bopp loo fay def également mu nekk lu nga xam ne lu sellee doon lu yàlla bëgg lu yonent bi gërëm lu nit ñu baax ñi gërëm ndax ña koy woote kat loolu lañu fa woote ndax dañoo xeex ñoom ba am ko kon boo leen di wuy si wuy si lañ ci li nga xam lii moom lañ bëgg ca bis ba kon daal ñi nga woo ñëpp ñi nga xam ni ñu nga fay ñëw wax di yàlla ñu méngoo ak li nga xam lii moom la bis bi woote. Amady Fall adjoint au sous-préfet arrondissement bu Sagara Jolof. tey ñu fi daje tey ci mairie Daary pour def benn CLD ngir waajal gamu bu ngilo bi war a am la 15 incha allah. waa dispositif bi dèjà mooy bi ñu organiser CLD bi mooy dajale chef service yëpp nga xam ne ku nekk.

te moustiques yi ñooy indi paludisme. lancé appel population bi rek ñu yombalal liggéey bi waa sécurité ñu fay ñëw ndax genre ndaje yi ci lañ ñu boni di di di profito donc ñoom aussi ñu collaborer ak euh, sécurité bi fu ñu gis def kat ko bon ñu dénoncer ko à temps ñu bañ ko couvrir. Moussa Ka yore kaddu bu Ngilo kalifa bi. li waroon waraloon suñu jotaay tey mooy waajtaay gàmmu bu Ngilo ndax euh, boo wootee ay nit pour ñu ñëw wuy si la daa am noo ko war a waajee. na mu war a waaje nag da koo war a waaj ba képp koo xamante ni ñëw nga ngi la nga ñëw ci jàmm boo ñibbi nga ñibbi ci jàmm loolu moo waral suñu jataay ak sous-préfet eh, lañu war a engagé ñoom wax nañu leen li ngi laaj jël nañu enga jël engagement kenn ku ne autorité bu ne jël na engagement bi mu war a jël muy sous-préfet muy gendarmerie gendarmerie moom isite na ñetti yoon ci wàllu mbedd yi wàllu kale yi nañu war a ñëwee ci ngila kenn ku ne mu am dal yar lépp lu ñuy tere moom mu bañ ko fa indi képp koo xamante ne def nga naka sutut noonu ba jokkoo ñoom itam yaag ñoom waaye kenn benn sëriñ du ci du ci def intervention loolu moom nay leer balaa ñu dugg ci gàmmu gi loolu la ñu waxtaan ci biir salle bi. waaw ci nawet bi ñu tombeel euh, loolu loolu yëpp ci jeetaay bii la ndax service d'hygiène wax nañu ak ñoom pour ñu def déplacement ñu pomp kër gi. ndax yooyu ak yeneen ak yeneen. wax nañu ko ñoom ba jël nañu engagement. même wax nañu ko wàllu sant wàllu santé itam ñoom itam nee na jël nañu seen engagement dinañ ñëw teew ci gàmmu gi lépp lu mu laaj ñu def ko. woo nañu ñëpp ñu ñëw wuy si si jàmm woo nañu ñëpp ñu ñëw màggal euh, guddib yonent bi sallallahu alayhi sallam sëriñ bi. mi ngi woo ñëpp nañu ñëw wuy waaye képp ko ko xamante ni yaa ngi ñëw itam na ñëw ci taaliba ñëw ci lislaam ñëw ci lisaan bëggul kenn ñëw fa am fa jafe-jafe wala nga indi fa jafe-jafe loolu moom waajal nañu ko bee képp koo xamante ni yaa ngi ñëw nanga nga ko parawaare say njaboot ak say ñooñ